laaj boobu nag dama ko merci merci merci kontaan ci yow ni ko jaajëfal bu baax a baax xam naa laaj boobu dama ko jël itam delloo ko ñi nga xam ne ñoo di suñu ay mbokki internet waaye ci sama xam-xam su gàtt de capitaine Touré amul benn condamnation boo xamante ne tegu na ci kawam donc euh, su nekkee ay fait bon peut-être lañ ko doon reprocher euh, bokk na ci ñàkk mandopte nee nañ euh, ci na mu doon defee liggéeyam ak wala génne information yoo xamante ne war ko woon a génnee li leen nekkoon na motif ci la tax ñu daal di koy dàq ca gendarmerie donc il a été radié tout simplement balaa ñu koy radié itam dañ ko rek daal di daal di wàccee ay gradam ba mu nekk agent simple laata ñu koy laata ñu koy dàq donc loolu itam nekk na procédure boo xamante ne moom la armée armée daal di enclenché rawatina gendarmerie ndax dana mën a dugaat on ne sait pas suñu xam-xam eggul foofu mais si en fait peut-être la demande on ne sait demande de réintégration euh, ndax euh, bu fàtte ne dañoo jàpp ne dafa def ay faute ci wàllum liggéeyam ak itam ci mandute gi nga xamante ne ñeeloon nañ ko ci moom moo tax ñu dàq ko donc euh, amul condamnation wala li ni mel loo xamante ne daal euh, ci sunu xam-xam su gàtt loi si dana fa agir mais bon xam nga yoon moom dafa sew li gars yi yoon dafa sew moom yoon dafa sew donc nañu bàyyi nga xamante ne ñoom a màcc ci wàllu woowu lay après nañu gën a gindi euh, capitaine Touré moom itam ci wàllam na lay daal demee ndax actuellement aussi il est engagé politiquement ndax ku bokk l'armée war ngaa politique loolu itam gëwuma ko donc nañu xaar daal su fekkee moom capitaine Touré sentir na ne war naa mën a delluwaat gendarmerie nag bon peut dina def demande bi ñi nga xam ne ñoo di autorité gendarmerie xool examiner ko ndax danañ ko mën a jëlaatam déet loolu itam lu lu mat a saytuwaat la donc merci d' avoir soulevé quand même euh, point essentiel salaamaaleykum. maaleykum na ngeen def. naka journée bi. waaw ah, sant alhamdulilah. foo ñu woowee si ta kër góor gi wala. wala ah pour man yaa nga Cour ah. suprême. <laughs> ñu ñu Mbacke. <laughs> bisimilah. Euh, waa Mba waa waaw xalaat lépp uh-huh. Mbacke démb na la ñu nañ la ñu réagir parce que nee nañu manifestation yi moom uh, fépp la si Gicoor démb ak Bignona uh, gox ak goxaat yooyu vraiment tojoon na Kaolack itam nañu doon signalé ne amoon na ay laisse de laisse de joie ba ci Kaffrine uh, démb ñoo ngi dégg ne militant wu Diomaye président yi moom toj nañ foofu. waaw macha léegi ndax ndax jàppoo li nga gis yow ci nit euh, wanewul ne élection jamono ji suñ ko amalee ci euh, app wi nga xamante ne moom lañ ko jàpp mu di 24 février 24 euh, mars plutôt boobu moytuwul yëf yi birib dib la nar a doon. même bu nga jàppoon 2030 sax birib la. ah, ah mais gars yi nag da ngeen di moytu de Karim Wade mi mi ñu bëgg a bokkale nii su duggee yëf yi mën naa changé de wala. non Karim ala kulli xaal mënut a duggaat. <laughs> déedéet c'est impossible. Mhm. ñoom bu leen neexee ku ku leen neex ko woo ci àdd bi mm-hmm. la leen la leen borom dénkoon ci réew mi seen douze ans jeex na mm-hmm. na nan bàyyi ñeneen ñëw parce que li ñuy dem nii du baax quoi mm-hmm. je en en deux mille en deux mille en deux mille sept bi suñu maam laa wax di soxlaa suñu ay baay ak suñu ay yaay ak suñu ay mag ñoo ko faloon léegi nag comme comme loolu la ko suñu borom dénkoon douze ans wax yàlla réew moo xamante ni ay presque ay ñaar fukki ñaar million ci ay nit wala dix-sept millions d'habitants. Mm-hmm. suñu borom tànn la si yow jiital la. Mm-hmm. taw fi yow je pense que danga war a sànni. Mm-hmm. mais loolu jàllee nag nga retourné waat. peuple boobu bëgg a fal keneen ngeen ni lii du fi am. je pense que Gorée bi mi ngi bëgg a dugg si. d'accord. ñàkk ngor ak ñàkk kóllëre mhm. ñoom waa PDS man sëñ bi mosuma wooteel ku dul PDS mhm. waaye wax dëgg yàlla ak li fi am nii moom képp ku ma xam képp ku ma xam mhm. dinaa la wax dëgg bul wooteel PDS fii war na fukki nag man sama carte dootuñu ko am ak sama carte famille dootuñu ko am da ngay respecté doomu aadama quoi parce que ñoom aussi respecté wu ñu ko ñu cër man mm-hmm. maa bëgg dee ñu naan Sénégal yi nee na Sénégal yan Sénégal la ñuy waxal. Mm-hmm. wala daal ñaari Sénégal ci réew mi ñun ñoo ni élection. Mm-hmm. waaw ñoom ñu ñoom ñu ni Sénégal yi nee na ñu daal yan Sénégal lan wax ay wala jëm de trois moom mi ngi woon mi ngi woon ci am nawet n'est-ce pas. ñam na ci nguur laa waat. Cheikh Tidiane Gadio moom mi ngi ci mi ngi am laa de mi ngi ci mag. après la génnaat ngir nekk candidat. Mhm. ñu recalé ko waaw il a va seet sa ayer yeneen liggéeyam bu fekk bu fekkee ñoom dañoo jàpp ci projet la ko dëgg yàlla toog muy dox boobu daa jeex. Mhm. dox moo fi jeex. Mhm. ñun daal suñu bëcc bi ñu nekk wax di yàlla cour suprême conseil constitutionnel ak Macky Sall kenn duñu ko yàqal du tee ñu ngi bàyyi xel bu baax. ah ah ah parce xam nañ ñu ko seexal. dañ ko fee def defati ko bul def nangam la ñuy bañ waaye ñu ngi leen di bàyyi xel baax baax baax du leen bàyyi leen neex dëkk dëkk bi li fi amoon amatu dafa doy ñu jël ñu jël suñu pays di ko doxal ko bu baax wax lu dëgg ji ak di sosal ak di hmm. tuumaal dafa war a dakk d'accord ñu réew mu ñuy fontoo réew mu war a defar mu ñëw gën bokk ñu gën a ci àdduna bi te du doon dëkk du ay wuruj ay wor ay ay ay lii laa ay laa bokk ak yooyu moo fi jeex moo jeex ñun leen lan leen leen lan bëgg li mhm. nga tey jii li ñuy wax ci Bassirou Diomaye Faye tey jii sëñ bi Bassirou Diomaye ëllëg bu ñëwee doxalee ne gars yi doxale ni taxawee doon lañuy taxawee de hmm. non nekkul nekkul nekkul personne bi déedéet ñun c'est suñu réew suñu réew la bëgg mu nekkul Ousmane Sonko nekkul Bassirou Diomaye mhm. am nañu yaakaar ci yow ñoom ñoo mën a doxal réew mi mais bu ñu ñëwee ëllëg di doxale comme ni gars yi doxale nii fii ñu féere tey fii ñu féere waat ndax kenn moomuñu waaye wax dëgg yàlla gis nañ ci ñoom yar teggin baax jub-jubal moo tax ñu jox leen suñ suñ suñ mhm. suñ xol yi te yàlla tax xaar yu ñoom dara nag lu liggéey Sénégal buñ toogee nag def leneen nit ah ñun fa nekk fa ñoom ba léegi dañ ne kenn bàyyi la laa yàlla <laughs> déedéet bëgg mm-hmm. mën naa bëgg lool nag waaye daf suñu réew mi ne ko yàlla nu ko yàq mm-hmm. am baax nag dëgg yàlla te leer na dinañ defar réew d'accord waaw gis nañ bëgg naa wax seen programme bi tamit ci wàllu monnaie locale boobu ay dégg Amadou Ba di ko jéemoon sa boote moo Khalifa Sall toujours li ma lay wax rek même système bi la Khalifa Sall PS la bokkoon Amadou Ba mi ngi APR kon ñoom seen devoir rek la ñuy def waaye ñun ñi nga xamante ne ñooy Sénégal yi ñoo war a jël suñu ay xam leen bëgg xam na lu baax xam lu safaan buñ ko maintenir loolu suñu borom mën nañoo defal jàmm defal ñu xéewal mhm. te suñu borom dañoo tàcc nag suñu tool yi buñ fekkul dóor de wax dëgg yàlla jot na sëkk nag ñu sawali de mhm. ñu ngi rafetlu seen liggéey baax wala yàlla mhm. dem ba léegi dinañ ñi taxaw rafet na ñu ngi ñaanal yàlla mu jàppale leen sutural leen def leen ay journalistes ma ba merci merci beaucoup merci merci merci euh, di ko sant di ko gërëm ah moom mi doon wootee euh, Mbàkke Bawol ñoo ngi koy nuyu di ko jaajëfal ah parce que ñu ngi wax naan foofu itam ni ki démb euh, gars yi bañ déggee ne Diomaye ak Sonko génn na am nañ ay réaction yu yu neex yoo nga xam jot nañ ko fa daal di am donc ñoom it ñëpp ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen ziar di xaar keneen ci 77 810